Mansour ci kàddu yàlla yu ci ni leneen li génn ci rapport bi muy ñaari milliards ci suy sénégalais yi contribué ñii seen ñaar dërëm ñii seen téeméer déposé déposé wuñu ko spécial ba euh, nga xam ne bëggoon nañu ko ngir xeex mbas mi. <laughs> waa Cour des comptes vraiment parce que dañuy gëstu nga yéemu ci juba jubadigu ñenn ñu nekk ci nguur gi nekkee parce que. c'est-à-dire que mooy li ñu dajale ci xaalis fa ñu ko woon daj sax foofu yeggu fa mais fan la nekk fan lañu ñu ko dugal nu ñu ko rawalee mais loolu ay question la euh, Mohamed mm-hmm. ma nga commencé coow li ñëpp xamoon nañu ni xaalisul ca ba ñu waxee ay pack alimentaire mm-hmm. amul kenn ku jot nii la jugoon amul sénégalais bu ko jot nañu wax mm-hmm. faw mu am lu manqué soit mag la saabooy manqué wala suukaray manqué mais pack bi moom matul alors pacte boobu lañ ba chiffré ko génne xaalis bi nga xam bi nga xam moo koy jënd Babacar Fall posé question Mansour Faye mun ko ba te question benn opposant moo wax ci jalgati googu mais loolu yu continue ñuy doxal doxal boo xam ne kenn contrôlé wu leen mais li nga wax na dafa garaaw moo gën a garaaw mooy fay ay nit yu dundul yoo xam ne existe ñu seeni seeni ndàmpaay di génn c'est-à-dire ñii li ñu def tuutee te ñu yoon ak crime coow nag mooy. kenn du ko pardonné. ñu ngi xaar fi ak une semaine lan lañ ciy def. ci ay xibaar. xëy na am na ñoo xam jot nañoo parce que. cour de comptes ci ay rapport am xëy na am na kilifa yu ko. mais nit ñi dañu bëgg a xam ñan lañu ci sanctionné parce que ñi nekkoon daaj ci jamono jooju. fi xam nañu leen. ministre yi leen yi li foon ñu ngi fi xam nañu leen. xaalis ko génnewaat. ku ci nekk am nga ay oto. am nga ay kër am nga ay tool. am nga ay bien boo defaat ko xaalis. comme ni ñu doon traqué Karim Wade gis nga Karim Wade doomu Sénégal la. fii la dëkk ñoom Omar Sarr fii lañ dëkk. ñoom Abdoulaye Balde donte fekk saat nañu Macky Sall doon traqué fii nii topp leen. Karim Wade ñu dugal ko kaso. Khalifa Sall ñu daf daf daf koy daf koy sa fekk. Mhm. ñu tuumaal ko dugal ko kaso doon ay góor waa dama ne ñi bokk ci nguuru APR ñoo gën a nekk ay góor ñi bokkoon ci nguuru PDS. Mm. wala ñi dañoo Sénégal dafa am ñaari identité nañu leen topp traqué leen nangu seeni ay bien tëj leen Fatou Abdou Alioune Tine moom proposition am leer na mooy ñi nga xam ne euh, rapport bi da leen épinglé nañu tekki seen nomba tànk wala lu ko mooy njiitu réew mi jël tout court responsable ngir ñu mën koy leeral dañu ko gis on n'a pas cette culture de démission au Sénégal rek ñu tuumal la mm-hmm. pour mettre à l'aise le président de la République pour justice mm-hmm. nga ne naa tekki samay ndombal tànk bàyyi justice mu def parce que c'est pas parce que dañ la tudd que aujourd'hui mën nañu ubbi information judiciaire jox la temps ñëw justifier manquement yi nga xam ne defoon nga ko ñu ne kat yow li ñu la doon tool nag faaw nga nekk as gor ba pare nangoo dem dénk sa bopp yàlla te wóolu sa defoo njuuj njaaj moom mooy tax nga def ko mais awma ci yaakaar que ne ñoom ñooñu dina xamante ne di nga def loolu dem xaar mbir yi leer mais li ci triste donc c'est tam sénégalais yi dajale Serigne Mountakha Bachir. 200 millions de fa CFA. ci joxe ko. ca njëlbeen. ca njëlbeen te moo ne sax nag gis nga bu ñu seetee ay kàddu naa jarta ragal nekk te corona bii nga xam ne yóbbu na fit li nekk tey cawarte gi ñu ci àndaloon nit corona yóbboo suñuy fit. ñoom ñu ànd ceeg cawarte mel na. amoon na kon. à manger a boire ah. ci jamono ji sénégalais yi di dund psychose ñenn ñi di suul seeni mbokk eh, ci ay ñaaxi nit ñetti nit fa parce que amoon na lu nekk ci biir ki dajale ñeenti téeméer parce que dafa tiit jàpp na ne moom amaana dinañ laa tàgge sa mbokk nga dajale ñëw joxe ñeenti téeméer sax gis naa man ku ko ci boole cinq cent millions yi nga xam ne sénégalais yi jaaykatu cere bi apprenti ki nga xam ne moo nekk ci secteur privé bi ki nga xamante ne am na doole sëriñ bi xalif général ñëpp dañu ko dajale jox ko ko ñu ne koppar googu mu xamee mm-hmm. duggul sax ci li nga xam lañu ko jagleel loon dafa am ñeneen ñu ko détourné mm-hmm. maanaam c'est triste pour le Sénégal il faut que mbir yi leer mm-hmm. ñi nga xamante ne aujourd'hui ils sont épinglés ñu mën indi ay justificatifs ci li nga xam ne moom la ñu leen wax ñu indi ko seetal seen bopp ngir la postérité aussi kenn du tilimal seeni njaboot ak ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci ñoom. Fat Abdou yan daan moo mën a gàllu seen ndoddu ñi nga xam ne rapport bi daf leen euh, laaj bi laaj nañu ko euh, kii di euh, Amath Thiam di expert juridique bu ñu sukkandiku rek ci loi bi ñooñee ñu dut baaraam tuuma rek leen tëj ci juróom jàpp fukki atu kaso yi nga xam ne dañu koy woor nag code pénal bu cent cinquante deux cent cinquante trois ak cent cinq ans euh, bu ñu sukkandikoo ba léegi ci expert juridique bi wax na ni ñoom ñooñu le ni ko xam léegi rek euh, bu ñu bañ a dem kaso mën nañu ci suuf euh, fay li nga xam kor gi ñu leen di toppee ñu teewlu ci amat ci am loolu bu amee nag mbiram càcc lay bu nekkee tàcc xaalis dañuy wax détournement de deniers publics mais bu nekkee ci privé civil la wala privé la dañuy wax on parle de abus confiance mais ci état infraction day changé état bu koy liggéey bu ko sàccee mais boo demee ci code pénal bi ñuy wax cent cinquante deux cent cinquante trois cent cinquante quatre disposition ne nitu nguur la yoon mën na ko daan lu jógee ci